Croix-Rouge nekk réseau humanitaire bu gën a mag ci àdduna bi te li leen tax a jug mooy dindi wala sax wàññi metitu doomu aadama ak aar ci wàllum wér-gu-yaram mba tax desuñu woon benn yoon ginnaaw ci xeex lii di Covid-19 ginnaaw ba mu tàmbalee ba léegi bu ñu sukkandikoo ci Abdoul El Mazib Diouf nekk coordinateur Croix-Rouge programme bi xeex wàllum coronavirus fii ci Hann bel liggéey bi liggéey ci pandémie covid actuellement.

distance euh, sociale yi kenn respecté wu ko woon boole ci nag ak yeneen nuisance yu fa nekk ak pollution yu fa am bi ñu demee ba nemmeeku barab bi dañu suñu suñu njàqare foofu la njëkk a tëbee bi ci topp euh, ci lañu dem rencontrer maire bi du commune bu Hann Bel-Air il a été très réceptif et il a compris ce qu'on lui disait

ci liggéeyu Croix-Rouge ci fegu ci pandémie bi euh, li ñu fa njëkk def nag ci jour bi moom mooy ñëw xool acteurs ya fa nekk jéem ñaan ñu respecter distance sociale yi mais en même temps ñu indi yenn information yi parce que ñenn ñi amuñu ko woon ñu ci bari sax boo leen laajee dañu naan ah kuy liggéey ci géej iode bi day tax euh, doo am euh, feebaru coronavirus. cest que genre mentalité yooyu rencontré nañ ko fa. ginnaaw loolu nag ñëwaat na ci tolluwaayu Hann Bel-Air ñeel jàngoro ji di Covid 19. tey jii ci Hann bel euh, je pense que déggaguñu kenn ku ñu ne euh, Covid 19 moo ko fi yóbbu yàlla def na euh, amoon nañu kenn ku tawat te dafa jël ay responsabilités am aussi def ci njàngale mu mat sëkk pour que keneen ku mu mën a doon nga bañ a tiit bañ a daw. nga dam ñu jël la en charge ba nga wér ni moom def naa daje ngeen ak moom te wax na leen li nga xamantene moom mooy aussi euh, feebar donc si territoire u li ñu fi doon njort ci ay cas wala ci ay grawal yi ba léegi yàlla sutural nañu ci euh, demagul noonu nag euh, mun nañu wax ne xëy na mun nañu ne am nañu ay cas mais cas yu stable la cas yoo xam jël nañ leen en charge ba wér nañ ñu ngi dox seeni soxla. moom ba tey di indi ay leeral ci camp d'isolement yooyu nekk Val d'Or ba nga xam ne dañ faa yóbbu woon ay cas suspect. centre de confinement bi am ci Val d'Or coow laa bëgg bëri te xëy na lépp du dëgg ci liñ ciy wax centre de confinement boobu ay pensionnaire la am pensionnaire feebar ku feebar amu fa ay pensionnaire la am yo xamné ne dañuy njort ne soit dañu nek en contact ak ay nit yu amone Covid 19 ñu né li gëna woor mom moy ñu daal di leen ber ci barab bo xamné ne euh, duñu ñu gisante ak li dess ci population bi ba saytu seen wér-gu-yaram ba xam ndax am nañ wala amuñ yalla def. Euh, depuis que 27 lañ fa depuis que ñu commencé activité bobo, ak euh, bien sûr suñu comité supérieur moy comité départemental bi mom moo fa yebal xalé yi bañu fa effectivement euh, dem nañ 27 personnes ñoo fa nekkoon ñaar wër nañ ba ñibbi seen kër am nak ñaar yuñ fa confirmé won ba jël nañ leen yobul leen ci centre de traitement yi donc ñaar dem nañ seen kër ñaar jël nañ leen yóbbu ci centre de traitement yi te déggaguñ ne euh, seen cas aggravé na ñi ci des euh, wa kër docteur ñu ngi continuer saytu bi lu ci am ni ñuy def communiqué bi à la radio, ak à la télé noonu lañ koy yëgandoo ñun ñëpp leneen li ci des moom mooy kaaraange ñi nga xam ne ñoo fa nekk. di leen wattu di leen yóbbul lekk ak ñoom seen ñoom dañu subir d'abord benn formation ak Croix-Rouge bi nga xam ne moom moo leen fa yebal mu wax leen protocole yi nga xamante ne kuy yëngu ci wàllu woowu moom ngay sàmmee sa bopp pour booy dem ci ñoom ak booy dikk am na dispositif boo xam ne de lavage sol ay bot sol ay gants sol sa masque Euh, amna sax pédulive buñ ñu leen fa aménagel bo xamantene buñ ñëwé ci lañu ñuy raxas seeni bot avant que ñuy rejoindre euh la euh, comment dirais-je le terrain social li ci dess mom moy fi nga xamantene fa lañu confiner su euh, cas cas contact yoy wala cas suspect yoy seen liggéey nekk lu metti waaye fu ñu toll ñu ngi def seen kéem kàttan ngir gën a réussir seen mission rawatina jamonoy coronavirus gi ñu nekk ndax liñ doon def dafa gën a yokk. ñom nak ñoo ngi ñaax askan wi ngir ñu gëna top ndigal autorité sanitaire yi ndax seen liggéey gëna yomb. message bu moy jox population bi mom moy ben ñu samonté diglay kër docteur parce que lool moy moy ñepp moy muccel ñepp ñaareel bi nak mom moy ñi nga xam yalla dogal na ci ñom tawat bi ñu wër wala ñu ñàkk wër ñu bañ. di leen daw ndaxte daw boobule li mu gën mën a jur moo ëpp li nga xamante ne bu ñu fekkee ne dañu leen dañu dañu dañu dañu leen a accepter ci biir société bi ci wàllu discipline ni nga xamante ne moom la société bi doxee sax daw doomu aadama nekkul suñu nekkul suñu baax ñun sénégalais kii nga xamante ne dafa am wopp dafa tawat kenn waru ko daw parce que buñ ko dawee catastrophe mën na am mën na génn fa mu nekk moom moo indi ñenn ñi buñ ñëwee ci biir dëkk bi sax génn nga léegi leen dañoo daw daw boobu baaxul parce que bu dawee day jël oto ci biir oto boobu mën na contaminer ay nit day dem dal ci benn kër ñëwee fekk foofu ay nit mën na leen contaminer walla mu effectivement dem ci foo xamante ne bii euh, euh, mbooloo moo fa ne. te mbooloo moom yëpp mu ngi en contact ak ñoom xamuñu nu muy wesaaree feebar ak dayo bu muy am kon stigmatisation boobu daw boobu ñuy daw ñu nga aji feebar yi dama bëgg ñu dakkal ko parce que li ci nekk def naa ki nga xam ne moom moo ci moo ci loru woon ba génn ci wax nañu ne boo jëlee matuwaay yi nga war a jël mais feebar bi comme soj la da nga ciy wér donc euh, nuñ koy waxee ti psychose bi ci am il faut ñu wàññi ko ci suñu biir mais du tere nag ñu jël suñu motowaay ni ñu ko war a jëlee.